d'abord li ma ko jàngate mooy lan mooy ndeyu dialogue bi ndax defe naa ne ñun ñëpp d'accord ni président de la république ci boppam moo wooteel boppam dialogue kon jàpp naa ni dafa yëg ni système électoral Sénégal am na lu ci bon am na loo xam ne war nañ ko defar am na ay jafe-jafe yu mag yoo xam ne mën nañu indil ay situation yu kenn bëggul gannaaw ay élection bu amee ci réew mi kon dama jàppoon ni moom mi wooteel jaloogam moo war a njëkk a pare que ñeneen ñi pour am lu mu bàyyi pour yombalal mbir yi pour woo ay nattangoom pour ñu génneel Sénégal loo xamee ni dina dem ci esprit consensuel wu 92. ma fàttali ñi nga xam ne ñu ngi génnee kàddu yooyu jëm ci 92 92 ak léegi am na ñaar fukki at ak juróom-ñeent kon lu ñu doon dund depuis ñaar fukki at ak juróom-ñeent war nañ ko xoolaat ndax évolution technologique ak ni ñuy organiser élection ci àddina soppeeku na lool nouvelle technologie yi dugg na ci ba xeetu élection léegi même Côte d'Ivoire soppeeku na fa bu baax a baax ba ca biir bureau de vote ba la ñuy identifier say empreinte kon tey jii bu ñu jëlee ñaari at yoo xamee ne dañuy waxtaan nee na ñooy dañuy waxtaan ndax man de dama waxoon ne bokkuma ci dialogue bi la taxoon ma wax aussi dafa woote woon dialogue bu njëkk mujj mu dugg ci naxee mbaay ndax la mu fa waxoon yëpp kenn def ko jëfewu ko moom ñamu àndaloon jëfewuñu ko tey jii ñoom bu ñu demee pendant deux ans waxtaan ba pare génn ñëw assemblée nationale boo leen dégloo ñuy wax day mel na ni ñii suñoo toog ñaari fan waxtaan dafa mel ne tey jii la ñu gën a féewaloo tey la ñu gën a ñàkk déggoo li muy fiir rek mooy que ni en réalité pas-pas bi waroon ci président de la république ak disposition yi mu waroon am pour yombalal mbir yi daf ko yombalul benn yoon li nit ñi doon xalaat ci bulletin unique di ko xalaat ci ministère de l'intérieur gu ñuy dàq ci élection yi di ko xalaat ci parrainage gu ñuy dindi ak yeneen ak yeneen yoo xamee ne moo war a rafetal élection Sénégal parewul pour taxaw ci indi ci ay tontu yu leer wala ay jëf yu am solo kon li bon ci mbir mi te teyal xelu nit ñi mooy dañoo gis ni rek comme par le chaque fois bu ñu wootee nit ñi ci dialogue dafa am leneen loo xam ne moo leen gën a intéressé mooy kan mooy transhumant bi ñuy xëcc indi ko ci seen i biir kan mooy diil yi nga xam moom la ñuy lijjantee seen biir et je pense que ni loolu dafa ñaaw jaaduwul du respecter nit ñi ndax alalu Sénégal moom lañ doon dépensé diir ñaari at. temps wu yi la ñu perte nit ñi nit ñi kenn déggatul woon ndax woote guñ doon woote ci dialogue ba kenn amatul woon sax sañ-sañu ni daw ma ci dialogue par conséquent bu ñu demee ba ca fin ba mu mujj affaire yi nekk di zéro sur du zéro je pense que ni sénégalais war nañu poser ay question question légitimes yi mooy est-ce que nguuru Macky Sall pare nañu pour Sénégal am ay élections yu am jàmm élections yu leer élections yu transparentes boo déggee lii ñuy wax ak nii ñuy defee nii daf lay leer ni parewuñu ko benn yoon ndax ba muy wooteel dialogue xam nañu réew mi tasaaroo woon na waxoon naa leen ni leen parrainage bi defar démocratie taxu ko jóg ba ñu demee ca parenage ba ba mu ko voteeloo ci réew mi ñëpp gis nañu ni loi la bu bon boo xamee daf koy permettre mu doon yàq gu muy yore ci loxoom ku ko neexul ci élection yi mu dàq la ci te Sénégal mënuñu am depuis 1960 ñu nekk réew am démocratie te saa yoo gisee ñu jëf rek bu ñu delluwulee gannaaw ñu ngi reculer def ay saut yu gën a jiggi dayo yu gën a bon jëm ca gannaaw ba nga xamee ne lu ñu mosoon a am en 92 tey ñàkk nañ ko et li gën a bon dañu koy ñàkkloo sous des slogans yu amul benn njëriñ mooy ay dialogue ay consensus yoo xam ne amul consensus amul dialogue parce que ay alibi la rek pour régler seen i problème waaw coow li da xam nga ni moom Sénégal léegi coow daf fi bëri parce que ñiy coow boo xoolee amuñu sax volonté wu vraiment dem élection ndax depuis combien de temps ñu nekk fii biñ génnee ci élection yële passé muy élection kii gis nañu ni demande woon nañu ñu auditer fichier bi parce que gis nañ jàpp nañ ni ñoom peut-être que fichier bi teguwul ci yoon jaarul yoon président accepté loolu woote dialogue bi ñu wootee dialogue am ñu ñëw am ñu ñëwul ci ñoom mais ñu ñëw bi ñu dialogué su trente point vingt cinq yëpp d'accord nañ ci li ci des mooy modification yi parce que ñoom d'accord nañ ci principe bu dem élection euh, locale boo xam ni da ngay xam ni kii mooy doon sa maire. parce que auparavant dañ daan def liste lañ daan def ñu dem élection ba pare kañ jàpp ni mooy war a nekk maire ñu dem ba ca biir mu am yeneen i affaire yoo xam ni daf cay nekk ba tax kooko du mën a jàll wala koo xam ne nii ñëw na ak ses moyen jënd conseil yi nekk maire te du doon volonté population pour éviter loolu nag président nag aussi d'accord na ci principe bi ñu changé def mode d'élection bi biñ ko changé léegi tête de liste bi moom la ñu xam ne mooy doon maire dëkk ba kon ñi voté dinañ xam ni ki ñuy woteel diw la te bu ñu voté moom mooy doon le maire donc loolu dañ ko war a rafetlu te ñoom d'accord nañ ci principe beneen bi ci des mooy li ñuy wax lu yàgg a nekk ci code électoral bi la jàpp gis nañ ni képp koo xam ne da nga war a nekk conseil municipal wala conseil départemental wala député wala leneen dañ lay laaj nga wuti casier judiciaire loolu kay ku fi mës a nekk di politique xam nga ko buñ la laajee wuti casier judiciaire pour wane ni yow mi set nga njublaŋoo jubadiwoo doo sàcc doo def nangam ak nangam wala amoo demele ak justice ba tax. tey nga war a mën a bax war a faru loolu lu fi nekkoon la kon bu ñëwee renforcer ko kay vraiment kuy bëgg a defar la ndax alalu askan bu ñu la ko dénk aussi il faut nga yor loxo yu set yoo xam ne da ko mën a yor teg ko fi mu war a tegu ba askan yi mën ko jëriñoo. Euh, lu ma la mën a wax mooy euh, code bi opposition bi du ko voté duñ ko voté parce que boo déggee ñu ne code électoral rek si dëkk am démocratie. day nekk loo xam ne dañuy laaj askan bi ñu waxtaan ba jiboo ba ànd parce que mbirum élection dafa nekk loo xam ne soo xoolis démocratie mooy doxal démocratie d'abord fa la commencé bu élection yi jaadul amul rek démocratie day xaaw a sooxe si réew donc lu waral lu mel ni comme code électoral boo demee si dëkk yëpp ñu dañ koy waxtaanee mais fii Sénégal lu ñu gis mooy li waxtaanee wu ko waxtaanee ñu ko nu mu waree parce que premier obstacle bu njëkk am mooy xam nga ni si dialogue bi lañ ko initier pour waxtaanee ko dialogue boobu ñëpp bokkuñu woon si dialogue bi parti démocratique sénégalais bokkuloon si dialogue bi donc bu parti démocratique sénégalais nga xam ne parti boo xam ne moo ëpp ay député si biir assemblée nationale si opposition bokkut xam nga ni déjà y a problème deuxièmement boo ñëwee ñu bokkoon si dialogue bi. ci biir ñu foofu toogoon bokk bu ñu jarat bu jeexee ñoo ne rapport bu ñu def nii ak lu ñu proposé du loo xam ne loolu moo leen gënal parce que du lii la ñu bëggoon si dialogue dialogue bi am donc nga xam ne kon consensus amul si si code bi consensus bu amul nag loolu euh, day wane ni samet ni amuñu volonté pour consensus mun a am moo tax boo gisee code bi am na lu bëri loo xam ne war nañ ko xoolaat war nañu xoolaat si âge yi jeunes yi nga xam ne tey bu nga nekk candidat présidentiel fa nga am 35 ans mais loolu dama jàpp dañ ko dépassé réew mi fu mu toll tey nii boo xasee am 18 ans mën nga nekk euh, électeur donc boo nekkee électeur war nga mën a nekk éligible donc bu ñu la nee yow boo amee 18 ans yow war nga mën a gàddu responsabilité pénal mooy lépp la def ci responsable te tes xanaa kay bu boobaa nag war nga mën a nekk nag candidat élection député war nga mun mun a nekk candidat élection présidentielle moo tax loolu dañu ko doon dindi si code bu bees bi nga boole ci ñu ne euh, dañu defoon parrainage parce que parrainage bi. Euh, liste yi dañ doon bëre bulletin dañu doon bëre loolu ñëpp xam nañu ni boo bëggee bulletin yu ñuy imprimer du bëre da ngay def liste bulletin unique bulletin unique bi tamit ñoom dañ ko bañ rejeté ko dugal ñu ko ci code bi te jàppoon naa ni waroon nañu avant am boo xam ne bulletin unique waroon na nekk tey loo xam ne dina dog bokk ci ci ci ci code bi nga boole ci euh, mbir mu maire yi xam nga léegi maire yi dañuy xam kan mooy nekk maire. alhamdulilah loolu dina dina yo oyofal liggéey bi trop population yi parce que da nga doon gis nii bu ñu ñëwee élection ñu voté benn liste après bu ñu paree conseiller ñi foogoon kii moo la nekk maire ñi am xaalis yi ñëw jënd conseiller bu boobaa ñu fal leen maire te du ñoom ñoo waroon nekk maire population yi bu ñuy voté ñu foogoon ni diw mu waroon nekk maire donc loolu code bi xaaw na ko régler mais régler problème bi yëpp dafa bàyyi euh, benn ouverture boo xam ne euh, dina tax ñu continuer amaat ay ay ay ay ay ay ay acte de de de de laa ko mën a waxee mooy maanaam di nga gis koo xam ne day nekk maire ñu falee ko si parti démocratique sénégalais wala si beneen parti. parti boobu feel ko caution ba mu nekk maire mu xëy suba rek dem rejoindre président Macky Sall te bu boobaa nag day mel ni euh, day euh, loolu nax population ak utiliser population bi la donc ñu ne ñu proposer waroon nañ def ci code bi maire boo xam ne buñ la falee ci bannière benn parti boo xëyee suba transhumé dem beneen parti boobaa war nga perte sa poste maire wala nga perte sa poste président parce que caution bu taxoon parti bu taxoon bu cautionné ba yow nga nekk maire boo xëyee bàyyi ko war nga perte lépp lu mu la joxoon loolu waroon nañ ko dugal si code bi waaye duggul ci code bi boo xoolee si code bi encore dañoo ñëw euh, def ay dispositions yoo xam ne dispositions ñi ngi foofu nga xam ne par exemple boo demee amee ay yeneen peine doo da perte sa droit yoo xam ne mun mënatoo nekk inscrire si liste électorale yi te boo xoolee am na ñoo xam ne dañuy bindu si dañuy bindu si code bi mooy boo pertee sax boo amee condamnation de un mois wala des fois trois mois di nga toog cinq ans yoo xam ne doo inscrire mais loolu yëlu maanaa koo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko sanctionné pour un mois wala ñu sanctionné ko pour trois pour trois euh, trois mois nga ne ko day toog cinq ans du inscrire deuxièmement lu ñuy appliquer code bi dañ dañ cor a préciser parce que di nga gis koo xam ne tribunal mooy am droit jox daan nit nga dem tribunal tribunal ne la man nanguwuma say droit civique ak politique waaye ñoom ñu fexe ba par ricochet ñu ñëw ne noo code pénal dafa ne buñ la daanee ay nangam giir war nga mën a perdre say droit civique te parce juge bi waxu ko loolu méngoowut ak lu droit wax juge moo am droit wax ni yow perte nga say droits civiques pertoo say droits civiques mais mënoo jël ay dispositions nga ñëw ne député yi voté leen ma loi bi bi nga xam ne dinaa tax ba juge bi bu ko daanee même bu bëggul wax ni perte na droits civiques comme man ma ma jaar si ginnaaw ma ne ko électoral bi nee na bu ñu la daanee ñaat ñangam at yow mënoo bokk loolu yëpp dafa xam ne loo xam ne day jaxase réew. boo leen jëlee affaire Karim Wade kooku problème amnistie la du problème loi nit yi war nañu xam affaire Karim Wade amnistie la moo waroon xool affaire amnisti pour ñu génne Karim ak euh, mais loi loi est impersonnelle deuxièmement la loi n'est pas rétroactive mënuñu wootee tey loi pour wax ne que on va gérer ce qui s'est passé l'année dernière non la loi n'est pas rétroactive lu am ci législation Sénégal mooy amnistie dañ leen condamné léegi il faut voir président bi daf leen gracier léegi assemblée moo des ñu amnistier leen bu fekkee c'est ça que le peuple veut loolu mooy démarche bi et ay code yu ñu créer pour yooyu